salaamaaleykum mbokk internet yi xam si TV Sénégal moo ñu ñëwaat ak seen di dalal yi te bu naan yi di yëngu ci art loolu tax tey ma dalal ku nga xam ci dëkk bi la dëkk ñu bëri xam nañ Petit Madj waaw ku ni Petit Madj waaw ñu ngi cosaanoo Ngéwal daanaka ñëpp xam nañ ko ngay mënoo génn dox tuuti laajte kan mooy Petit Madj te kenn jàppale yóbbu yóbbu la tëb kon daanaka nekk tur bu nga xam dañ koy euh, présenté léegi dañ koy bàyyi mu ak euh, askan bi ak ñi nga xam ni dañuy faral di suivre Teuf comme ni ma leen ko waxee émission bi ñu tudd couleur urbaine ah, dalaloon naa ko euh, ci émission boobu boobu maa ngi woon si rajo Ngaye waaw ah, ba tey émission boobu noonu mooy wéy ñu baax na léegi ma bàyyi la nga wax ak ñi nga xam ne dañuy faral di déglu euh, euh, Teuf Connection fii Sénégal. alhamdulilah monsieur Diallo bisimilah rahmaan rahim ngeen wax mu sant yàlla jullu ci yonent bi sant suñu ñaaw sant say jiw bu baax di ñaanal seen taxaw mbaa suñu sant tedd bi yàgg fi loolu téwér di ko ñaanal xaar généraux yëpp nag ah, Tafa di la ziare di la baalu ak ci wóoru koor bu tedd bi nekk te di la baal ak ah, te di wax ni kontaan naa si sa émission bi ma invité ah, nga xam ni c'est pas la première fois mën naa ni c'est la deuxième fois ñu def émission bi émission bi nga xam ne ñëpp moom la ñuy xaar léegi mën naa ni parce que dans le monde dem na ba wër àdduna bi kon vraiment ñu ngi lay nuyu di la. ñaanal yàlla fi nga bëgg sa télé egg fi yàlla eggal ko ko li wax ni daal vraiment kontaan nañu ci invitation bi ñu def nii kon ñu ngi nuyoo loolu askan wi di wax ni asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. waaw comme ni ma leen ko présenté sànq euh, Petit Math doomu Ngaye léegi ñu bàyyi ko mu waxtaan ak ñi nga xam ne euh, dañuy seetaan Teuf Connection TV Sénégal Petit Math. dafa ñu ngi nuyu def condition Sénégal non man pas Sénégal sax même aduna bi yëpp parce que sa kii bi nes dépassé na frontière bi léegi aduna bi ñu koy seetaan Amérique Italie France Espagne environnement ya, ñëpp ñu ngi koy seetaan parce que vraiment tamit nit ñi bëgg na lu neex eh, waaw di la si wax ni daal sa affaire bi fi nga jàpp foofu la rek yàlla yàlla jëmal ko ba ca kanam kanam waaye dafa ni fans yi ñi ah, ni seetaan ñu leen di nuyu di am bégte ci yéen di wax ni ñun artiste yi amuñu lu yéen li wax do leen eh, jël ndox ndax ñun su mënuloo dem sans yéen daal kon ñi ngi leen di ñaan aussi ñi ngi leen talal tàllal loxo ngeen jàppale ñu seen bëgg-bëgg la dox suba am ngoon ñun yéen a tax talu ñoo neew talu lo nekk talu ñoo naan ngir di leen satisfaire rek kon taxa ñuy ngi nuyu fans di wax ni di leen talal loxo di wax ñi ngi nii waaw. comme ni ma leen ko waxee mooy Petit Math tey ma dalal ko sama émission boobu ñu naan couleur urbaine ah ku ne couleur urbaine maanaam dajale leen lépp daal euh, lépp lu nga xam ni dafa euh, jëm si wàllum aada cosaan. waaw mm-hmm. ah, loolu yëpp dañ koo dajale. Mm-hmm. léegi dama bëggoon nga wax ak euh, say fans. Mm-hmm. Ah, gis nañ que ni yaa ngi def yaa ngi waajal anniversaire. daanaka léegi dama bëgg nga dugg foofu noonu comme anniversaire nan la la dikkalee. ak ginnaaw bu ñu sant yàlla di wax ni boo gisee ñu def anniversaire mooy dama nekkoon di ngaay di tëgg sabar boobu xale bu ndaw la à l'âge de 12 ans ci la commencé di tëgg sabar mais boo duggee ci arab bi am na ñoo xam ne commencé lay bëgg say soppe say am di jàmm say fans léegi nag ma ma ni daal comme yaa def na mu am ay fans ak yooyu naa jël benn jour boo xam dama koy jàpp benn tas boo xam ne datu côté maaj la su ko defee ma bëgg ci fans yi comme tey su ma si damay dem kër fan si bu ne ma ko loolu lu ta nekk léegi boo wootee ñoom ñëpp ñëw da nga mën a saafonte ñoom loolu moo waral anniversaire bi yaakaar naa si je ne me trompe pas bi mooy douzième anniversaire bi waaw xam nga ni. léegi bi mooy douzième anniversaire. Uh-huh. léegi dañ bëgg nga tàmbale sa cëppandaw. Uh-huh. maanaam na nga tàmbale. première bi waaw première bi ñu koy def euh, boobu ñu ngi ko commencé ci mbedd mi boobu affaire tamit xaw a métti trop parce que li mais yàlla pexem li naan jàmm rek bëgg bëgg yàlla pexem aussi ku am nit ñi yar ko dara nit ñi day jàppale say fans Omar Sow mi tey moo tax euh, du ma ko fàtte de passage ngi koy bëri bëri waaw koy nuyu moom di wax ne ko bis bi ñu jëm nii fàttewuma la ci ci nan yaa ngi ci bis bi yóbbu naa ko day jaar fekk mu fa jox naa ko faraloo. waaw de noonu la premier bi commencé mu nekk période boo xam ni dafa mujj dépassé sax ndax dama koo jàpp woon lu ndaw mais li naan am nit ñi amoon ñaar koo dara nit ñi samay xarit samay fans samay am di jàmm samay mbokk ñëpp jàpp ci ba bis bi tey moo jur édition yi tey donc fu ne da koy yaayam te tey macha allah noonu premier bi commencé. léegi ku mhm. di petit mhm. di bëgg nga wax waaw bis ba ba ma ne petit maa ngi géwal bi ñun dañoo nekkoon ak suñuy nijaay ku mel ni jàng na jaay ku mel ni suñu papa Abbas ñun li ñuy def lañ ci ñoom lañ koo gisee ñoom ñoo daan tëgg sabar bu daan tëgg ñoom ñu jël ay galan ñu nekk xale ndaw di ànd ak ñoom ñu ni terte defal ni defal ni defal na bàyyi la def tey ñu màgg ba gis nga tey ni yàlla dogal mais ñoom ñu ngi leen di gërëm di leen sant ni feccum leen bu neexee yaay ci ñu jàpp ca mbàgg mi kon lépp lu mënti am ñoom lañ koy gërëmee ñoom ñu ngi leen di nuyu la demee. léegi maanaam Petit Math. Mhm. ak euh, Gourgo. Mhm. nan la la demee yow nan ba tànn sa groupe. Mhm. parce bi gis nañ am nga groupe. waaw te yaa ngi dox ay programme waaw léegi la demee sa diggante. yaa si groupe ak nan ba sos sa groupe. waaw mooy li ma la wax rek xam nga àdduna moom loo mënti am na ñoo xam ne dañoo bëgg kii ñu bëgg kee ñu bëgg kee yàlla def na may dem di jàng boobu aw aw mooy sabab si sama nijaay jàng na la daan am tamit abbas ñu tëggi mais yàlla def day ñoo xam dana da laaj ko ni dama bëgg nga tëggal programme su ko defee ma ñëwee sama nijaay jàng na ne ko abal ma ñetti sabar ñu dem tëggi programme dem di dem di dem nga xam ni vraiment xew ci dëkk yi di ma woo environ bu nekk la ma woo macha allah loolu daal ma toog waxtaan ak booy nag vraiment tamit comme yàlla na léegi nit ñi kon xam nañu te nag ku nekk tamit bëgg nga sa jaar-jaar te àdduna tamit loo ci gis ay temps la yàlla dimbali na nañ ci profité bon ca yaakaar su may rakk su may mag su may frère xam nga ñun tamit yàlla dafa loo xam macha allah tey ñun sa famille ñu ne sama rakk bàyyi seen man fi ne sama sabar yi mooy for mooy yéegal mooy def lépp nag moo retraité na ñëw rek mu dugal ko tamit ñu ànd dem de passage ñoom commande maa ngi leen ñoom saa ñeneen suma frère mbay baa bu bi daaw la desee moom it yàlla boole woon waaw dara mos a ñaaw. léegi dañuy ñëw foofu sa diggante ak euh, Mbaye Ba nga wax ni si tuuti. waaw kooku bu ma ci laajee dinaa sawar ndax yàlla dafa dafa def moom mu nekkoon Dakar mais ma ñëw Dakar fekk ko foofu man ko Mbaye suma daal nga ñëw ànd ak man ñu bokk liggéey bi ndax yàlla dimbali na ma maa ngi ci aar te yàlla boole na ak ñu baax moom it mu neex a digal ñëw ànd ak man ñi ànd ba yàlla def Macky Sall président de la République gis ko bëggal ko boppam gis nga bi mu ñëwee ngaay fii ma gis dafa ko fi ay teraanga mais moom it ku nekkoon ku baax ku social bay da daan feebar sax fàtte feebar boppam ndax jàmm na bu nit ñi am na benn simax boo xam ne trois ans yi nii mbay day takk wotiri bi ànd ak sama rakk bàyyi sëriñ du dugg ci dëkk bi du du ko lijjanti presque trois ans yoo xam ne mu ngi xam tabaski bi mu génn àdduna leen ñi xam loolu mu nekkoon koo xam ne ku baax la vraiment moom daal missionnaire loolu moo si daal waaw mais nag yàlla na ko yàlla xadaa ñema yàlla jabar gi fi bàyyi yàlla tekki loxo mais di la wax daal bu baax la daal waaw vraiment daal bu ma ko fàtte mukk sumay may ci moom sax day xaw a yàq sama émission su tax mun na ko yemale foofu rek. léegi léegi dañuy ñëwaat tuuti. dañuy dañuy ñëwaat tuuti. maanaam ci ci ci Petit Math. Hmm. waaw bu doon tënk. Hmm. di wax kan eh, mooy Petit Math. Hmm. Eh, loo loo si wax. Bapak di mana moom nggak ada judul yang ngéwal dapat jadi di sama ya sampai di sama baik, vraiment eh, mau judul ci koñ bi nag aw ma fa ini xar ma yàlla sama kër jaga suami masya allah nee sama kita kalau ini ada ataaya fa kalau ini develop lo pasti satu sant yàlla kami xam ni tamit cër bu ma jox la du sama baaxu sama dara mais ñoo am seen baax ak seen woyof ini fi ne tey léegi mën sama kër toog jaay mais dina dina bëgg Dakar bay daan sànq nga woo yeeg vraiment ngay profité ci occasion bi di la gërëm di la remercier parce que yaay sama ménagère te seetaanoo ma lépp loo mën ci lu baax yaa koy def waaw ah, di ñaan yàlla yàlla eggal yéen yi ba li nga xam ne moom lañ bëgg a yàlla defal une réussite totale waaw ah, di ko ñaanal waa staff bi yëpp nag mais daal wax ni ngir daal vraiment amoo seen fay. léegi léegi dañuy ñëw. Mhm. dañuy ñëwaat tuuti ma lay laaj. Mhm. ba xam primaire bi méngoo naag parce que ku liggéeyoon. Mhm. les mhm. parce que euh, daanaka ni ñëwoon mooy bibliothèque. Mhm. parce que ñoom fekk nañ mm, histoire bu lu te lu nga xam ni booy gëstu sa cosaan. daanaka mën nañu wax que ni ñëwoon ñëwoon ngay def. léegi euh, si si si cosaan boobu noonu. est-ce nga koo est-ce que fexe nga koo boole ak modernité comme supposons. Euh, côté art yaa ngi dugg ci moderne tuuti ak ay instrument wala leneen ak leneen waaw boo rek profité tamit di gërëm monsieur le maire de la commune de Mekké El Hadj Malick Wade ndax bi mu njëkkee def anniversaire bi deuxièmement bi mu ñëw fekke ko fekk boobu yóbbu ma orchestre sabay na mu ak sama sama gars may tëdd noonu ci la vraiment bu leen war ngeen dem ci la orchestre ko Pencum après mu jël ko teg ko sama loxo may ànd ak gars ñoom Mor Seck di ko nuyu Ndiambé Ndong Samba euh, Mor Dela Mbaye Dieye euh, ku li bëri juum ñoom it vraiment ñu neex a àndal ñu fi ne anniversaire bi année yi ñu yooyu maanaam ko waa ngi war ñoom it indi sabari li naan ñoo fay la force ñu boole ko mu neex waaw moom noonu la demee. waaw léegi dañuy ñëw. Mhm. Mm-hmm. est-ce que Primat am na staff. Mm-hmm. bu dëgër bu nga xam ni. Mm-hmm. moo koy jàppale ci liggéey parce que dama koy wax dama koy wax. lu bëri. maanaam kenn mënta bëri. boo dee bëri maanaam foo wut morom mu nga xam ni. moom moo bu naan combat. ñaari nit ñooy sëg yu bëri. maanaam yow mënoo nekk artiste. nga bëgg a kii bëri est-ce que organiser wu mm-hmm. mm-hmm. euh, liggéey yu bëri di ko mën a song est-ce que Petit Macky am na staff. waaw sant naa yàlla bu baax a baax a baax ndax yàlla mën naa ni affaire bi ma koy doog a def métti woon na waaw métti woon sax parce que ñu ngi ci daan jàpp ñu bëri ñu mais comme ni ma amee staff léegi nga xam par exemple ni bu ñu xëyee ñoom ñooy ñëw organiser def ànd ñëw rafetlu salle bi ñooy dem jaayi seen ticket ñooy seen sécurité. kon daal xam nga ma ci am léegi le jour ñëw joué mu pare ma dem loolu sant yàlla la tey li ma amee staff vraiment dina ko gërëmee loo xam ne tamit staff bi vraiment kontaan nañu ci ñoom waaw li rek lu kenn man ñaar ko dàq waaw te vraiment ñu ngi tàllal ñëpp loxo petit maa moom képp koo xam ne aar aaru ngaay bëgg nga aaru ngaay jëm kanam ñu ngi lay dalal wax ñëw dafa ubbil ci staff bi parce que ñu liggéey loolu te amuñu lu ngaay vraiment. dara boobaag léegi dara ñaaw te gis naa ci avancement staff boobu moom vraiment moom daf ma wàccee ci yu bëree bëree bëree bëri kon sant nañ ci yàlla bu baax di léegi yow boo amoon looy wax euh, bi nga tàmbalee def aar bi. Mhm. ba léegi. Mhm. Euh, lan ngay wax. waaw di nan lu gën a jàppale rek ndax euh, tamit ñun ñi ngi tàllal waa Ngaye nga xam doomu Ngaye la xam ni. pour nekk doomu ngaay nekk ya, macha allah ñu ngi lay talal loxo loo xam ni aaru ngaay nit ñaa ngi ci jàpp mais bu ñu jàppee mu gën a dem parce que aar fi nga fekk baax fii dëkk histoire la dëkk culture la kon may baax encore lu wax ni nan jàppale artiste ngaay yi muy théâtre bi muy percussionniste bi muy chanteur bi ah, muy moom aar bi daal kon ñu ngi lancé un appel solo na pour nan jàppale artiste ñu ngi leen di jàppale sax mais nan leen gën parce que tey boo demee Louga tey day dem fay festival en Espagne en Italie ah ñun pourquoi pas ñun war nañoo dem parce que suñu talent dépassé na ko léegi mais kon léegi nañu gën a jàppale rek tamit pour gars yi bëgg a dem ñu bëgg a faa dem parce que talent baa ngi fi mais jàppale bi moo des quoi sérieusement pare ñuy lancé un appel nañu gën a jàppale ñu artistes yi parce que talent baa ngi fi li gars yi mën daa xamu ko mais pour pousse nga dem daal mën na pousse waaw. lii fàttali. Petit Magne nekk ndaanaan di doomu dëkk bi waaw Petit Magne et eh, le groupe et eh, son groupe Ngéwal mm-hmm. waaw yaa ngi waajal benn événement mu sa douzième anniversaire édition waaw bi mooy douzième édition mm-hmm. léegi dañuy retracé tuuti si onzième édition mm-hmm. ak tam li nga xam ne moom ngay waajal euh, si douzième édition incha allah waaw nga wax euh, date bi ak tamit noo ko bëgg organiser yooyu yëpp

kon am na loo xam ne ñu ngi koy yaay baax mais di ni vraiment kontaan nañu daaw dafa am parce que daaw fu ñëwoon rek kontaan na amoon na défilé de boo xam ni Cheikh si Cheikh Sylla moo ko defoon vraiment da ko ko félicité moom it na ci waaw di félicité ñi xam ne vraiment pare yi jàppoon ci à part mu commencé ci monsieur le xam ni vraiment moom it euh, yaakaar naa ne bis ñëw taxaw ci jàpp ci bu baax a baax def ci ak euh, waa municipalité bépp vraiment sama xarit sama doomu ndey ngay jàlloo moom it dëkk bi ko dalee def ba lu ma nekk ni moom it vraiment ñu ko ci woo di vraiment di ko gërëm euh, di gërëm adjoint maire yëpp boo limee da di wax fan si am ni jàmm yeeg ñëpp daal xam ne bis bi seen bis la waaw jigéen ñi nag fàttewuma kenn damay jël loxo ji nuyoo ko ci loxo Adja Fatou Diop jëli waaw suma sama sama xarit sama jigéen yi gis nga ko vraiment nga xam yaakamtu wudul samay mbir waaw ah, moom di ko ñaanal yàlla suñu doom yi dafa may ñu ko koy bu maaka ah, kooku ajaam benn mooy yaayam kooku mooy seen idi di sa gor vraiment ñi ko wax moom it mus ñu jàll loog jaar daf une forte délégation ñoom waaw di wax daal bàyyiwul kenn boo limee da ngay jum daal comme nañ ko waxee ci publicité rek waaw woo nañu ñëpp muy ànd jàmm xarit góor jigéen mag ndaw yalla ci yalla mok jang sàmba mu nekk une réussite totale loolu la ni ñam léegi bo moom benn message bi nga xamni ni koy lancer sa fans ak tamit ñi nga xamni ñoy autorité dëkk bi wax ko sax nga del so yi nga xam ne daal yaa ngi sa xol ba ko wax waay ma maa rek man vraiment suma ma chaque jour ci la may ñew sa kër sa xam yow jox la lo mais bo gisee loolu motax mo mu war anniversaire bi léegi bu ñëpp ñëwee boobaa di nga mën a saafonte ak ñoom may wax neen fan si encore une fois waxuma loolu yëpp maman ki ne mbaw xam ni soxna seen mooy yaayam ak pata boobu mooy bàyyam nekk Amérique di sama jigéen sama rak sama xarit moom it ah ñu ngi koy woo ci bis bi de waaw di wax tegala bay moom it suma frère suma xarit ñu ngi koy woo moom prom France lay benn sama doom lay création ñu ngi koy woo ah di woo aw war na suma jigéen nekk àndal góor jóg waaw ndeysaan di woo kulim daal ngay nak kulit kulim ngay juum te bëgguma fàtte kenn waaw dina wax ne daal fansi lii may def ni ñenn ko moom encore une fois ñu teel a ñëw mën ci yàlla doon jàmm si lan demee de la Korité à partir de vingt une heure neuf heures bëgg naa kër Paa Fall Diop kër Mame Assou chez Rose na allah waaw di gërëm ko jëj yi te daaw suma suma suma seet ni mooy mare la woon indi ma teraanga yu bëri yàlla na yàlla na ko yàlla defal xam bu dëgg wér yaram ba incha allah déwén ñoom ñaar bokk ci yéen mais vraiment fàttewuñ ko di wax ni daal waa ngaay yi wër ngaay yëpp àdduna bi ah ñu ngi leen wax anniversaire bi yéen a ko moom seen bis la waaj leen ko pare leen ko ah fàttewuma tamit monsieur le préfet du département de Tivaouane monsieur Guèye suma xaalis suma doomu ndey di woo Seynabou Guèye Touré la présidente départementale de Tivaouane sama jigéen yéen maa ngi lay woo ci bis bi waa di wax ni ku lim da ngay li ma bëgg a wax boo bay bañ a fàtte moom nitu ñëpp la di wax daal programme anniversaire moom ñëpp ko moom seen bis la si tuuti mbaa ngewal nga mu dëkk nag mention spéciale wax ngeen yéen a war a teru gan kuy teru gan doogu dayaa boole wax ni ngeen teel a génn ñëw teewal ma gan yi waaw di yee waaw noonu la demee euh, muy seen émission mhm. couleur urbaine ñu koy faral def ma leen koy Euh, présenté si Teuf Connection TV Sénégal comme ni ma ko tey tey ndaanaan lañu dalal ku nga xam ne kenn doot ko euh, présenté. Mm-hmm. Euh, doomu dëkk bi la te ci li mu nekk daf cee fier waaw daf cee fier te mi ngi koy wane waaw daanaka gis nañ lu bëri dañu dëkk si dëkk bi mm-hmm. nekk ci aar bi mm-hmm. dem ba am tur wala leneen ak leneen di organiser di ko def feneen. moom na depuis boobu léegi mi ngi koy. teewal ci dëkkam rek wa mhm. di ko teewal ci dëkkam mhm. te inshallah ñu kay e, ñaan ñu mhm. ñaan suñu borom ci mbedd la tam lool muy e, ram di ram dem ba dóor ci sal ñu ñu ñaan inshallah euh allah inshallah ñu fekk ko jàmm salam ñu dem ba def ko grand air wala ñu dem ba def ko ci stade ngaay suñu borom mën mën na ko ñu koy ñaan euh defal ñu ko léegi euh xamna am fansam yi fansam yi. Mhm. Euh, ñu ngi koy xaar. Mhm. waaw te ku ni askanu Ngéwël rek. Mhm. Euh, comme ni koy waxee war na yomb. léegi dama koy bàyyi mu bëggal euh, fansam yi ah. waaw noonu la demee def connexion léegi mu bàyyi ko mu bëggal fansam. léegi kon nag neex na neex na randal caasar te wuroon doon attaque sabar ku ma tàcc sa loxo bi métti ku ma sax wala doon dee tafa fan yii neexulee na waaw walaay dagan bañ a ko fan yii neexulee